بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة برم كوا بوك جريتي بوك تاليبي يولين دي ديوف دي لين زياري دي لين بارو أخ دي لين بارو أخ دي لين جاجي فرش عند جيندي عند مولي تيوي في تبيرو مي أكبت مريو باي دي لين جاجي فرش عند جيتو مي دي تاو مولي تيفو ممن ني خم جيني عند جين ساسو نك تلي جيل شاو خاتم في تبيرو مي أكبت مريو نيجي جيب نك خيو خيو بومك مولي ماك بروك سرين توباكي دارو كروس màggal boobu nga war a doon altine bii di ñëw incha allah rabbi ñaari fan ci novembre 2015 ci loolu nag ñu ngi toog ak kenn ci kilifa yi nga xam ne nii ci kër gi lañ féete di Daaru Xuddus muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Aliou Mbacke waaye rek nekk coordinateur bu màggal gi muy ni leen ko waxee léegi màggalu Serigne Touba ci Daaru Xudoos kon Serigne bi la ziar euh, suñu borom tabaraka wa taala noo ngi julli ci yonent bi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant xaadimu rasul mi borom bis bi nga xam ne euh, bisam la ñu di ko màggale ci Daarul Xudus te Cheikh Mahamadou Moustapha jëkku ko santaane Euh, di leen nuyu bu baax di leen sant di sant bu baax Mouride TV di gis liggéey bu rafet bi muy def ci ci ci réew mi ko defal xaadimu rasul di ko defal askan wi di ko defal réew mi di leen sant bu baax ñu koy rafetlu bu baax di leen xamal ne ñoo ngi leen di suivre waxtu wu ne di sant euh, yeneen sites yi fi nekk yëpp itam jaare ko ci yéen ngeen nekk suñu ndaw ci ñoom ak borom réseau yi ak képp koo xam na yaa ngi tas xibaar euh, jëmee ko ci te di ko jaar ci jaar wu yoon woo xam ne euh, yàlla nangu na ko yonent bi nangu ko Serigne Touba nangu ko. jërëjëf Serigne Cheikh euh, euh, Aliou Mbacké ci néew yu am solo yooyu kon dañuy daal di tàmbali rek li xam ne nii moo di waxtaan wi wala jataay bi muy ren lan ngeen apporté comme innovation en tant que coordinateur Magal Serigne Touba ci ci Daaru Xudoos. jërëjëf laaj nga ma question bu am solo. Euh, ndaxte Serigne Touba boo xoolee ci xoqal bukaawu ala saadatin amwaati tabkil aradiya alayhim ka samawaati euh, dañ ko bind nekk ne ko ndax jooy mat nañoo jooy mu ne ah kay mooy saadaat yi mooy kilifay saadaat yi nga xam ne mooy nit ñu baax ña daal wax nañu mel ci seen biir nañu fonke diine l'islam nañu fonke doom adama yi nañu fonke liggéey nañu fonke makarimul akhlaq ya ñu am nga xamné man dama jàpp ne buma doon wax qualifier livre bi dama nan jëmmam la wone ci téré boobu mu ne ci waruf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun maa al wafai bi sidqin fi l uxuwaati bolo ci fraternité nek ben euh naa ne lolu bala dara am mbooloo mooy doole al jamaatu rahma kon ren màggal gi ñu ngi ko def ci signe jàmm sous le signe de la paix de la fraternité euh, loolu maanaam ñëpp am jàmm euh, askan wépp jàmmoo euh, ndax boo seetee àddina bi fitna yàq na ko fitna ji fu ne fitna am na fa te fitna ji ci biti bi boo koy seet nit ñi jax jaaxle nañu koo xam ne dem dee ci géej gi moo la gënal dund ci sam réew yaa ngi ci fitna te loola kenn mucc ci diine ji mucc ci fi dul diine yi mucc ci kon dafa mel ne biir diine bu ñu ko dañ ko war a jàng ba xam lan la diine islaam santaane ci ñu war a doon yërmande mu war ko am ak tolérance na ko sunu uh, yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba defee woon mooy musta xat musta damm musta yëkkati fetal musta xeex musta def dara ci wàkkilu ci suñu borom di jaamu suñu borom liggéeyal Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dimbali doomu aadama yi loolu moo doon gànnaayam euh, jàngale jàngale moo xam ne li ma koy waxee mën naa yor àddina kon kooka lam nu digal ka dem ba wax ne fala tuaadu man raaytum faahu yoxruju laa ilaha illallah delluwaat ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida siwaa intimaa ila jilaani aw intimaa li ahmada tijaani aw li siwaa huma min al aqtaab bis kulluhum xataan ala sawaabi ki wax loolu dafa bëgg ñëpp booloo bokk benn bokk ndey bokk baay loolu bu ñu wéeru woon ci njàngaleem yaakaar naa ne bu ci àddina wéeru woon euh, kenn du ëmbal sa morom dara lu dul aw yiw kon jàmm rek ay am te am réew mu ne su ko tabax ci lu dul jàmm munta nekk gis nga ji tabaxu woon bay bëgg egg yëpp toj na xoolal àddina bi rek fépp toj na léegi nag alhamdulilah Sénégal yàlla may na ko chance mooy nit ñu baax ñoo fi nekk ku demee ne si El Hadj Malick mi nga xam ne moom lañ tuddee ren euh, exposition bi ak turux yi tarixa yi fi nekk yëpp nga xam ne kenn ku ne mbooloo nga yor te doo leen joxoñ mukk fu bon fu baax nga leen di joxe joxoñ loolu réew mu ko am am nga chance kon ñoom seen jàngale dafa mat a euh, sàmm mat a saytu di ko jàng ba xam ko ba mokkal ko di ko jàngale muy law di dem bu ñu bëggee am nation boo xam ne day tudd nation réew moo xam ne day am développement réew mu fokk kon ñu boole xol yi loolu rawatina ci biir njabootam gi fokk nag ñu yéeneente jàmm loolu nag ci euh, loolu pour loolu am nag nga xam ne dañuy topp ay ndigalam ku topp ndigalam rek doo juum te dara ci moom xeebuwul waaw waaye nag nañ ko toppe nañ ko war a toppee eh, nam ko diglee woon delluwaat ci usul ya yaakaar naa ne bu ñu defee loolu ci ci loolu lañ bëgg a tëral ren mooy innovation yi nga xam ne bëgg nañ ko apporter ci màggal gi ren pour que ñëpp xam ne kenn ku ne lislaam di dañoo am yoon yu maanaam mi ngi mel ne tey nga nga bëgg a dem ñëw tubaa bu la neexee jaari jóge dakaar jaari Kébémer bu la neexee sax nga jàll ba Louga door a ñëw am na weneen yoon bu la neexee nga jaari Kaolack jaar Gossas ñëw jóge dakaar bu la neexee boo jógee dakaar jaar ba ba boori Tamba wuru soo gi nga wëriwaat ñëwaat euh, Linguère ñëwaat fii kon yoon yi ñoo ñoo bokk lépp Sëriñ Touba dafa waxoon ne euh, imam Malik comme ngir yëpp a baax waaye ginnaaw li ëpp ci Sénégal imam Malik lañu lañu la ñu topp kon topp leen ko kooku li mu bëggoon mooy cohabitation bi mën a yomb maanaam dëkkin yu mën a yomb kooku wet goo ko seet rek da caa mat mat goo xam ne boo koy xool kamu lay jox rek mooy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sangam ba nga xam ne moom la doon roy waaw nit nag da ko roy ba niru ko ba mel ne benn ngeen ndax mus sa xalaat ku dul Muhammadu Rasulullah musta dara musul neex ci moom lu dul Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu mu jàng njàngaleem yokk ci ay xalaatam ak xelam xam pédagogie bañ koy jàngalee mu dugal ko ci mag ña muy jokk jëlaatoo ba fi ñu nekk kon loolu lu mat a sauvegarder la lu mat a lu mat a lu mat a garder la loo xam ne ëpp naa ñàkk ndax jamono fi ñu toll àgg na ci nar a yàqu ndax yàqu gi mooy pexe yi bari na euh, moyens yi xereñ nañu yàq yomb na ci kon ñoom li des ci réew ci mu bañ a yàqu rek mooy seen liggéey boobee euh, guided yooyu fi des jóge ci ñoom li makaaramal axlaax loolu kat moo tee euh, ñu mel na réew yi ci des waaye ay nit la ñu ñuy ay nit ay góor nekk fa ay góor nekk fi ay jigéen nekk fa ay jigéen nekk fi dara wuteelu ñu lu dul ñu baax ñooñu mag ñu baax ñooñu te xadimu rasul di ci ko ci ràññeeku jërëjëf euh, Serigne Mbacke di nuyu Serigne Aliou Serigne Cheikh Aliou Mbacke coordinateur yaakaar naa ne leeral ci laaj boobu am na solo lool euh, leeral yi sax tàbbi na sax ci euh, laaju tontu ci euh, laaj bi nga xam ne nii waajalam nañ ko muy lan moo waral ngeen tànn maam El Hadj Malick tudde ko exposition bi yaakaar naa ñëw na ci lu gën a yaatu kon dañuy wéy rek ci beneen laaj muy Serigne bi en tant que professionnel communication ren. ban stratégie wala yan plan de communication ngeen indi ci magalu bu jëkk gi nga xam ne wala magalu Serigne Touba ko dos ci Darou Khoudoss 2015 yan stratégie wala yan plan de communication ngeen tëral ngir tassaré magal bi. waaw plan de communication bi d'abord ndax dafa am d'abord leral ci communication la bokk. te te yang koy jaare ci moyen de communication. leral ndax magal gi dañ nan magaluk Darou Khoudoss. dëgg la naam daar Xuddoos sañ koy defee waaye màggaluk Serigne Touba la ndax Serigne Touba liggéey na li may koy waxee kenn ko ne ñaari bis nga am bis bi nga juddoo suñu borom commencé enregistré ba bis bi ngay dellu war a yóbbu bilan ñaari yooyu rek moo fi ne kon bis boobu itam di bisu Serigne tubaa boobu bu am maanaa la ragal rawatina nag muy am symbole bu rëy muy ramz boo xam ne mooy jëlee ko njaareem indi ko fii mooy li ma ko wax léegi buñ koy indiwloon fii ayam kon kenn kon dëkk bi du mel nii leer na kon euh, loolu euh, lu ci am solo la ci ci ci ci ci ci loolu mais communication itam dana nekk ci mbind dana nekk ci wax dana nekk ci yuuxu dana nekk ci déey dana nekk ci sax ci xalaat boo ñëwagul nga seet noo koy mettre en œuvre pour mu mën a dugg loolu yëpp day àgg ci communication bu dee ci communication média yi ñun danoo bokk ci euh, ARPAC dañ cee bokk mooy union des euh, rajo euh, comment rajo rajo quartier yi nu mu tuddati rajo communautaire union des rajo dañ cee bokk dama cee bokk ba tax na fu bëree bari ci Sénégal couvrir na ko fi ñu toll may waxee ak yow euh, suñu appel bi wala suñuy wax ma ngay dem Casamance ña ngi koy waxee foofa rajo bu ñuy wax yi ma ngi koy jàllale ma nga ca Wuro gi ma nga Kédougou ma nga Tamba ma nga Ndar ma nga fu ne waaw am na nu benn benn email boo xam ne bu ci kenn kii rek ñëpp a ci jot yo bu ñu ko yónnee it fépp lay dem kon Sénégal gépp lañ arrosé incha allah loolu dama caa bokk sa ndax sama rajo yi mu ceeñeer ak jant bi waaw ceeñeer sax moo ci bokk mais jant bi rajo privé la mais bële mooy rajo communautaire kon dama bok ci lolou nga xamne kon ba legui dama don waxal jamaatu rahma mbooloo day indi dole alhamdulilah rabbil alamin jallel nañ ko itam ci média classique yi muy télévision yi ci ep solo jallel nañ ko ci site yi comme sen site bi nga xamne wax deug yàlla ñi ngi leen di delu encore une fois di leen santat bu baax sen liggéey rafet na ma ngi leen di ma ngi koy consulter lu baax rek ngeen ci wax tayit it xibaar yu wóor lay don yo xamne da nga am fu ngeen ko tek Euh, kon euh, communication yooyu ba ci réseau yi ñoom itam wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey liggéey bu rafet di yee nit ñi ci seen xeeti théâtre yu am solo yi ñuy def ci kaw mas naa leen recevoir ne leen na ngeen ci xam war a may dëkk bi rek di fi teg loo xam ne euh, bu sëriñ bi ñëwoon du ko bañ di fi teg lu baax lu yee doomu aadama